doucement doucement. Top. Doucement les gars, doucement, doucement. Là, là, là, là, là, par là, là. doxal maa ngi si ginnaaw maa ngi si ginnaaw avancé leen mu gaaw avancé leen si kaw.